rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa salaam sant suñu ñaari waajur Salixuma Adja Salixuma mee toog ñu ngi sant docteur Ndeye Maguette mi nga xam ne moo waral lii di sant jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne ñëpp depuis ce matin ba léegi ñoo ngi toog fii bàyyi seen yitte bàyyi seen soxla bàyyi seen lépp bàyyi seen borom kër yi bàyyi seen doom yi ñëw toog fii ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm aussi jeunesse bi ñi nga xam ne ñoo toog fii ngir jàppale docteur Ndeye Maguette di nuyu aussi comité bi nga xam ne ñoom tamit wax dëgg yàlla macha allah commencé ko ci amaat mu taal ñoom biraa su ma limee damay juum te dama matale képp koo xam ne daal yaa ngi toog fii ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la masawu coono te xam ne gis nañ seen taxawaay gis nañ seen yéene gis nañ seen bëgg-bëgg ci docteur Ndeye màgget ak ak Anta Ndiaye ñu ngi leen sant bu baax. léegi comme ni ko nit ñi waxee su ma si jaaraatee daanaka day nekk répétition nee naa leen ñun fii njaareem dañoo yéex a feeñ keroog bi ñu defee fii sargal bi ñëpp xam nañ ne ñun ñooy kan ndax fii dañ fee liggéey docteur Ndeye Maguette fii def na fi social ba tàyyi social bi mu fi def sax dafa bëri moo tax ñi fi jaar ñëpp lim nañ ko su ma ko limee tamit day. ëpp loxo rek mais lim nañ ko ndax docteur Ndeye Maguette créé woon na fi benn association bu ñu naan am AMSA moom moo ko fi njëkk indi indi fi ay tubaab bi mu ko fi créé ba association bi commencé dox am ñu ñëw na ko foqat yóbbu association bi di si def di si yëngatu moom mu toog di leen seetaan waxu si yàbbiwu si dégg nga moo tax kenn ku si nekk di la la yàlla wërsëgale bés bu jotee dina ñëw te doo sonn kon nag waaw kon nag ci loolu ci tekk-tekkaaram ak ci teeyam ñu ngi ko si sant bu baax dakk si gërëm ndax si doonoon keneen mën naa doxalee neneen mais loolu yëpp fekk ko si daf ne comme ñoom ñoo ko bëgg a jël bàyyee naa leen ko ñu jël ko di ko doxal docteur Ndeye màgget fii jàppale na jigéen ñi ba tàyyi te man lii liggéey bii nga xam ne moom laay def fii ci njaareem ginnaaw yàlla moo ma si jàppale ba tey ma toll fii léegi donc liggéey bi dama ko leeral setal ko mu am si mbégte ndax man ni may liggéey jigéen ñi ñoom ñëpp si gis seen bopp sa at mi jotee kenn ku si nekk di nga sol sa nduroole kaf fecc reetaan sa xol sedd ñun loolu lañ si doon wër parce que même su ma toogoon di ko wax du am sens mais nit ñi ci boppam ñoom ñoo koy témoigner ñoom ñoo koy wax waaw ndax gis nañ seen bopp léegi nag comme ñun dañ doon def social di jàppale nit ñi ah ñuy yëngatu di leen jàppale daara yi fépp koo xam ne nii vulnérable nga yàlla dogal na jàppale nañ léegi nag comme léegi ñu ngi doon def social ba ci yàgg docteur nday Maguette ne naa teg sama tànk teg sama tànk mooy lan dugg ci politique bi pour mën a jàppale askan bi ndax kenn xam ne ne soo duggul ci politique bi ni nga mën a bëgg a jàppalee askan bi doo ko mën parce que réseau bi ca kaw la nekk au niveau national te léegi su fekkee yow xamuñu la niñ la bëgg a jàppalee duñu la mën a jàppale moo tax nag man développement laa commencé woon ak li yéen waaye nag comme moom sama mag la te nee na man ma jàppale ko ci politique bi kon dama siy dem ba jeex moom ngeen xam ne tey rek ndi doo gis rek ci un lay ba ma doon dem di leen jàppale ci avec yi boobu xalaatu moon affaire politique wër na jëmm sëñ Touba ni may waxee nii xalaatu ma affaire politique développement laa xalaatoon ak yéen mais nag comme moom bëgg na politique def na ko ci xolam man mii tamit am naa samay jigéen ñoo xam ne ñoo ma bëgg ma bëgg leen ma ne leen ñëw leen ngeen jàppale docteur Ndeye Maguette waaw dégg te man xam naa ne 23 janvier 2022 suñ leen waxee ne dem leen voté ji élection locale su ne ante ne fëgg leen jóg leen dangeen naan anta fa mu ñu dugal foofu lañuy dugg waaw man ci sama xalaat man loolu laa xalaat man xam naa ne man wax naa ko docteur ma ne ko man sama jigéen ñi nga xam ne ñoom la man njaagam dama naan samay jigéen ngeen man mayu ma leen ay millions mais jàngal naa leen fi ngeen di jaar ba am ay millions waaw tey ku siy toj kees tey soo amul 10 millions di nga am 15 millions waaw kon lool nag loolu ndam la moo tax nag ñun politique de développement bi nga xam ne moom la ñuy def dañoo bëgg ngeen jàpp si bu dëgg te xam ne lii comme ni ko Motaal waxee lancement bi la mais leneen ñëwagul defilu bi su ñëwee mooy gën a neex ndax tey jii ñoo ngi nii matériel bi muy indil yëpp nii tey jouru sargal bi xolam sedd parce que sargal bi nee naa su ma ko sargalul woon keneen di ñëw du ko sargal du am sens ndax su nee diw baax na mbokk ya ñoom ñoo koy wax ba pare waaw ndax lim ñuy jàppale fii ci suñu kër nekk suñu xalifa nekk suñu mag nekk suñu lépp man su ma jaaxlee mooy sama conseillère waaw mooy sama conseillère su ma nee Anta xam nga man ñëpp xam ne man damaa tàng des fois damay tàng ba xam kenn du ma xàmmee ah. mais su ma ko jegee laaj ko na ko docteur man ne nii ak nii laa bëggoon def mu ne ma déet bul def nii defal nii defal nii wàcce sama tension wàcce sama lépp ma daal di def defaat ndànk continuer sama liggéey waaw. kon nag kon nag comme moom moo ma jàppale jàppale ma te gis nga jàppale bi. dangay ngay nekk ci benn situation mais kenn du dund ba dee te ne yow doo am problème wala doo am jafe-jafe amul. des fois da nga nekk ci ay situation yu metti man nekkoon naa ci ay situation yu metti moom moo ma si génnee. ginnaaw yàlla ak yonent bi. ak yonent bi laa wax di su ko woon kenn moom moo ma ci génnee ba tey ma am ndam lii nga xam ne moom laa am fii ci njaaram ba ñëpp xam ne man am naa ndam fii ci njaaram léegi nag liñ leen di wax mooy lenn damaa bëgg damaa bëgg. ngeen jàppale ñu te yàlla tax ngeen jàppale docteur Ndeye màgget ndax man maa nekk ci seen biir maa ñëw seen avec yi ngeen di lal seeni basang may ñëw di toog ak yéen ci biir basang yi di xam seen soxla xam seen problème mu santé xam seen problème mu éducation ah xam seen problème alphabétisation xam seen problème financier xam ne bëgg ngeen financement ah xam li ngeen bëgg lépp man maa ko xam man ndax man maay toog ci seen biir xam seen problème léeg-léeg kenn woo ma ne ma ante lii laa am problème situation ma def defal ko naxal ko tuti jox ko limako jox mu dem te ma samba waaw ma samba du xam ma demba du xam waaw kon nak comme nonu la sama mag jogna neena jogbel bu bes gis-gis bu bes taxaway bu bes njaaram bu bes kon nak da nga ngi taxaw ak mom ci nonu waaw waaw waaw ngeen ngeen and ak mom ñu ànd ak moom liggéey incha allahu bi di ngeen gis di ngeen gis ñun duñu nekk di wax loo xam ne su ëllëgee du ngeen ko gis man mi nekk ak xam ngeen ma à 100 pour cent kon nag damaa bëgg ngeen ànd ak docteur Ndeye màgget ngeen jàppale ma ma jàppale docteur Ndeye màgget docteur ndey Maguette aussi jàppale monsieur le ministre Dame Diop waaw kon nag maa ngi leen sant bu baax di sant suñu docteur bu ñaawul bii